hi asalaamaaleykum nuyu naa leen bu baax a baax ak foo leen munti nekk ci Sénégal wala sax ci bitim réew ñoo ngi ci épisode 2 ci podcast juróomi simili alors jolosu wala téléphone yi nga xamante ni moom lañuy ñuy jëfandikoo sax su nekk anam bi ñu koy defaree mën na am ay jeexital yu mag a mag ci sunu environnement wala ci sunu alam bi mais aussi ci sunu société bi alors ngir xam loolu yëpp nag yan jeexital la ay ta ñu dem ci podcast juróomi simili bi waxtaan ci loolu. alors ci sunu épisode yi ñu waxtaan waxtaanoon nañu ci ressources yi nga xamante ni moom la ñu jëlee ci suuf si di ko jëfandikoo suñuy defar ay jolosu maanaam ay téléphone yi ñu ci gënoon a ràññee nag nekkoon li ñuy wax ay terres rares maanaam ay ressources yi nga xamante ni dañoo jafe gis alors loo xamante ni nag bariwul suñu koy jëfandikoo ak toole su yàggee dafay jeex. donc ressources yi nga xamante ni ñu ngi koy jëlee ci suuf si pour defar ay jolosu day am ay jeexital yu mag a mag a mag ci suñu environnement bi manaam ci suñu alam bi alors naka la loolu mën a nekkee pour génnee ressources yi nag ci suuf si dafay laaj énergie bu bëri ak ndox bu bëri lu ci mel ni ay pétrole këriñ maanaam charbon ak ay gaz naturel et cetera suñuy jëfandikoo énergie yooyu yëpp nag pour génnee ressources yi ci suuf si liggéey bu rëy la te nag day sànni gaz bu bari ci jaww ji ci suuf si ak ci ndox mi te loolu yëpp nag day am ay jeexital yu mag ci sunu environnement bi ci 70 éléments yi nga xamante ni ñu ngi koy jëfandikoo ngir defar ay colosu lu ëpp fukk mën na jeex fi téeméeri at lu ci mel ni ay xaalis maanaam argent zinc gallium tantal ak lithium beneen ressource bi nga xamante ni mu ngi tudd cobalt waxoon nañ ci épisode bi passé moom aussi dafa nekk ci yoonu jeex ci àdduna bi mais yi gën a nekk ci yoonu jeex nag yi ci gën a ràññee mu ngi nekk li ñuy wax nickel cuivre wala përëm étain lithium magnésium yooyu nekk na ci ressources yoo xamante ni ñu ngi jeex bu baax a baax ci àdduna bi alors mën nañu wax kon nag sax ne garaawul parce que téléphone euh, tuuti euh, tuuti lay peser maanaam li ñuy peser bëriwul ay 200 grammes lay peser mais en réalité ñu jëfandikoo 44 kilogrammes de matière première pour defar benn téléphone te téléphone boobu bu yàqoo. récupéré matière yi ci nekkoon ci biir dafay jafe trop ndaxte tuuti tuuti rek la ñuy fekk ci biir téléphone bi dafay dispersé wu te dañ ko mooñ ci biir. avec téléphone yu bees yi ni ñuy génnee recycler ko pour jotaat matière première yi moo gën a jafe sax wutaat ressources yi pour defaraat téléphone bu bees donc entreprise yi ñoom dañuy vite fait dañuy def seen choix. beneen jafe-jafe bi ñu mën a ràññee euh, ci ni ñuy jëfandikoo matière première yi pour defar ay téléphone euh, mën nañ ci wax que ne. Euh, jeexital bi muy am ci société bi maanaam xale yi nga xamante ni ñoo ngi leen di liggéeyloo anam bi ñi nga xamante ni ñu ngi koy liggéeyee ci euh, miin feebar yi nga xamante ni ñu ngi koy ràññee ci bërëb yi nga xamante ni moo wër miini maanaam fi nga xamante ni foofu la ressources yu nekk te foofu lañ koy jëlee euh, ndaxte dafa am ay gaz yoo xamante ni dañ koy faral di sànni ci ngelaw li ci jaww ji te gaz yooyu noonu dafay affecté santé wu société bi nekk aux et en plus su fekkee nag ne mine yooyu dañoo nekk ci zone yoo xamante ni dafa am guerre wala am ay tension dafay gën a compliqué alors je pense que nag loolu moo tax mu am solo trop ñu xam téléphone yi nga xamante ni moom lañuy jëfandikoo saa su nekk fan lay jógee ak ni koy defaree ban impact la am suñu société bi ak sa suñu environnement bi donc épisode bi di ñëw dinañuy wax ci yow mi nga xamante ni yaa ngi may déglu naka nga mën a def euh, ba bokk ci ñi nga xamante ni dañuy aar alam bi maanaam environnement bi ak naka nga war a jëfandikoo sa téléphone ngir yàq bañ a am alors yéen ñi nga xamante ni yéen ñuy déglu nag bu leen fàtte abonné wu ci podcast juróomi simili bi moo xam ngeen di utiliser application bi wala ngeen di utiliser plateforme bu munti nekk pour déglu ñu alors épisode tey bi nag entreprise bi ñuy wax Dux suma moo ko sponsorisé waat moo ngi nekk benn entreprise buy def livraison fii ci Dakar et ku leen bëgg jot. Euh, mën nga leen jot ci numéro yi nga xamante ni moo nekk nii 78 173 86 86 wala 76 197 76 07 ñu ngi nekk fépp ci Dakar di def ay livraison yu am solo te dafa gaaw torop allez merci beaucoup donc ba suba incha allah ci beneen épisode bu bees.